salaamaaleykum mbokki internet yi ñuy déglu dal leen a jàmm ci suñu site bi ñu daal di àddu rek jëm ci coow li nga xam ne moo doxoon ci diggante ñii di liggéey ci wal fajri ak ki nga xamante ne nii moo di Abdoulaye Sylla di directeur général Ecotra émission bu ñu amaloon foofee ca wal fajri nag kii di Pape Sané ak Omar Gueye dañoo daal di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Abdoulaye Sylla mu di ay kàddu yoo xamante ne nii rek dañ koy tuumaal ne dafa daal di luubal xaalisu askan wi te it liggéey ya nga xamante ne nii moom lañ doon def foofee ca ñaa jox ba léegi kenn réalisé wu ko mu di ay tuuma yoo xamante xamante ne nii rek dañ koy yëkkati woon daal di koy teg ci patron Ecotra boobee di Abdoulaye Sylla ci ndigalu Abdoulaye Sylla moomee nag di ab administrateur société ki nga xam ne moo di maître Adama Dia di huissier de justice daal di délivré ab citation direct ci chroniqueur yooyee di liggéey ca groupe Walfadjri di Pape Sané ak ki di Omar Gueye